باب التصريف حرف وشبهه من الصرف بريء وما سواهما بتصريف حري حرف حرف وشبهه lu niroog moom te mooy lisam yi ñuy binaal lisam yi ñuy binaal ak fiil yu ñuy binaal maanaam lisam yu ñuy binaal moo niroog xaraf wala fiil jaamit ni ki laysa ak niam yooyu bariin yu dañ lañu min a tasrif kon sarfi min xawaasil muarab tasrif lu ñuy liraab rek moo xam fiilu fiilu fiil bu ñuy wax mën a xar la wala ni ki daraba li ñu ko binaal binaal mutasarrif la ndax dana am mudaari dana am ism faayil ak leneen kooku kon des na ko tasrif waaye fiilu jaamit ni ki laysa ak niama wala lisim ju ñuy binaal ngir niru xarafa ak xaraf ci boppam loolu mooy xarfun wa shibhu bariyun lu dañ la min a sarfi ci tasrif wa ma siwahuma lu dul ñoom lu dul xaraf ak lu ko niru kooku xarin ku yàlloo la bi tasrif la ñuy tasrif nag walaysa adna min sulaasiyin yura qaabila tasrifin siwa ma guyira walaysa yura deesu ko gis moom li nangu ku ko tasrif adna mu gën a néew min sulaasiyin kenn du gis baat buñ gën a néew sulaasi yu qaabila tasrifin mbir mu mu di aji nangu tasrif si waa ma lu dul la nga xam ne ko yira des koo soppi ci tasrif rek ba mu soppi ku jëkk lu mel ni ki yadin ak damin laa mu baat ga la ñu xasaf kooku dañ ko soppi du tee ñu tasrif ko ngay wax al aydi wala nga naan dima un su ko defee hamsa gu mujj googu nag moo doon yaa gu mujj ga yadun yada yun la doon ci cosaan aywa damu nit dama wun waaw la woon moom laa mu baatam boo koy tës ni dama waa ni ngay wax aywa wala qul feelu amrin ñaari xaraf la waaye dañ ko soppeek tasrif illab tasrif yi yaa ko soppi waaw wa woon ca digg ba ba ñu jasamee mu daare moon lam yaqul loola ñaari sukkoon yo moo dindi woon waaw kooku dañ ko taxyir li illatin tasrif yi kon bon qul ak damun ak yadun yooyu danañ leen tasrif ndax seen manqué baat bu ko manqué kenn du ko tasrif mu ma mu xayar bokku ci wa muntahas min xamsunin tajarrada wa in yusad fihi fama saban ada wa muntahas min yemukaayu lisim xamsun mooy juróomi xaraf in tajarrada ndeem rafle wu na ci xarafin ndollant gannaaw lisimi mujarrad la amul ndollant kon du passé yem fukk juróom mooy yemukaayam ni ki safar jalin wa in yusat fihi bu ñu demee ba di ca yokkitam lu mu bare bare fama ada du jàll saban juróom ñaar dégg nga lu mel ni istixraajun illa ma kaana min siyaadati tasniyati aw il jami ni ki istixraajaani istixraajaatun waaw lu demee noonu rek waaye loola moom kon ku ne xam na ni fi taqdiri lim fi sàll bokkut ci fin bi juróom ñaar moom du ko passé ni ki istixraajun wa naxwi wa gayra axiri thulaasi iftax wadum waksir wasid taskina saalihi tam awsaanu sulaasi yu lisimu sulaasi yu ay wasnoom du jàll lii ah mu ni kon te mooy juróom-ñeenti wasnu du ko jàll déet fukki wasnoog ñaar ndaxte xayru axiri sulaasi mooy faa'uhu wa aynuhu lu ci ne fataako dégg ni ki faalun dégg nga ah lu ci ne nan ko faat faalun lu dëgg ak maanaam nan jëkke faagi rek niki tey faalun wala faulun niki adut wala failun niki kabir ñettangoog ci faagi wala nga dikk sukkoon nan mujj sukkoon gi wala nga dàmm ayin gi dégg nga noo ngi jëkk wala nu dem ci faagi ba noppi nga ni nga andi kasrak faagi ni fialun fiulun dananu wax ni kooku moom muhmal la daal di ni fiilun ni ki ibilun ñetta ngoog ak ñett muy ñaata juróom benn nga dikk ni fualun lu dëgg am na xusam tur la fualun bi nga dàmmee faagi fuilun kooku nee na wal aksu yaqin kooku moom dana du muhmal waaye néew na fuil ni ki du il ismu qabil wala bu des wax nanu faulun wax fu fu fu danoo dam faaje lun dépare fualun dégg nga ni ki qusamun wala fuulun ni ki unuqun wala fuilun ni ki duilun ismu qabila muy ñett di ñaataati juróom-ñeent xar aywa nga sukkoon ayin ga fa'lun ah fu'lun fi'lun muy ñaata fukk ak ñaar mu ni kon awsaani sulaasi yu lisimu sulaasi yu du génne fukki yeeg ñaar waaye nag yëpp du du du du duñu leen jëfandikoo ndaxte fi'lun uhmila fi'l amul ci lisimi arab dégg nga ndaxte jóge ci kasra dikk ci dàmm wala ak su safaan ba mooy fuil kooko yàqil lu day néew nag ni ki du il lu tax mu néew li qasdihim ngir seen jublu tax si sa fiilin jagle fiil bi fuila moom dañ ko bëgg a bàyyee fiil murakkab mabni lil majhul kon lisim moom lu néew la koy doon waftax wa dumma waksiri thaniya min fiilin sulaasiyin wa zid nicma dumi nu dem ci fiilu fiilu sulaasi ndax tasrif lisim ak fiil mutasarrif la boole bu dee fi'lu sulaasi waftax fataal wa dumma wala nga daam boog seen nga kal saaniya arabu ñaareel ba maanaam fataal ñaareel ba ni ki faala dégg nga wala ci ba muy mujarrad ci lanu ne de du dëgg mujarrad moom fi am sulaasi maanaam waaye waaye fa tudd nañ sulaasi yi sax iftax fataal maanaam aynu sulaasi mooy saani ni ki daraba waddu ma damm ko ni ki karuma waksir kasra ko ni ki fahima ak rakiba min fiilin sulaasi wasid yokkal naxwu dumina muy duriba waaye kooku nag li gën a wóor mooy ni kooku bokkul ci cosaan yi kat wa innama huwa muhawalun an faala wala faila dégg nga waaye wërsnu boppamu cosaan buy fuila amut ci fiilu sulaasi xanaa kay farun la daraba la woon nga fexe ba def ko duriba wala mu doon rakaba rakiba nga def ko rukiba waaw kooku muhawalun an ahadihima moo tax fil asaxi kooku kon feelu sulaas yu ñetti wasnu rek la am wa muntahaahu yamukaayu feel nag arbaun ñeenti xaraf in jurrida ay in kaana mujarradan min azawaid kon ñeent lay doon ni ki dax raja ji firi beran wa in yuzad fiihi moom it buñ ca yokk fama sittan ada du mën a jéggi juróom benn niki lu mel ni istaxraja istafala ak yi muwa ay muwasinam niki if an lala iq an sasa if alal la yooyu nga xam ni yëpp juróom benn lañu kooku du ko jàll ndegam mujarrad la dégg nga déet ndegam masid fiihi la laaw lismin mujarradin rubain faalalu wa fililun wa filalun wa fululu nee na lisim mujarrad bu ñeenti araf awsaan yi la am falalun ni ki jaafarun wala fi wala fililun ni ki zibrijun wala filalun ni ki filalun ni ki dirhamun wala fululun ni ki jurhum ismu qabila ومع فعل ف- فعلل وإن على فمع فعلل حوا فعلللا ومع فعل عندك فعل رباعي لا فعل نكتي آه آه آه نك- قمطر لوعاء الكتب قمطر فعلل نكي قنفذ ci ab suñeel xunfuzun wala fu'lalun la nu kat fu'lalun ni ki tuxlab tuxlab mooy loolu ñuy wax ñàmb wert googuy ne ci loxo tuxlab fi'lun fu'lalun wayin ala su fekkee dafa ëpp rubaa yi kon fa ma fa'allalin nee na kon xaw faqa fa xawaa laq na fa'allal ah ni ki safar jël fa lu nu wax ci lisim lanu ne fa'allalin ah akay fa'allalin ka safar jëlin xawaa laq na ànd ak fa'allalin laq na fa'allali la ni ki jax marisin lil ajuz kaza fual ah fuallilun ni ki xusa bilin ismun lil batil wa fi lallu ni ki tey qirtaabun maa fihi qirtaabun qirtaabu mooy acheyul xaqir daal qirtaabun ay cheyun xaqirun lu ñàkk solo fial anamu fi lallu wa ma gaayara lu soppeeg loolu nu waxoon ci awsaani li si ma ki fiil yëpp kooku benn intama dafa askanu li zaydi ci yokk du dëgg wala naqs yokk ak naqs moo koy wàññi su dee ca fiil wasnu tafaalaak tafaalalaak yooyu yëpp yokk la rek du dëgg benn benn rubaayu faala la dong moo ci amul yokk wala boog mu wàññiku ni ki nu waxoon ci xul ak bi ak da ak yadun ak damun was nu wuyu wuuteeg yii ci lisim ak fiil daal zayd wala naqs moo ko def wal xarfu in yalzam fa asl léegi nu nuy xame zaida ak ak asl wal xarfu xaraf in yalzam bu taqoo al kalimata fi jamici tasaarifihi kooku fa aslun cosaan la xaraf waxaa ne loo tasrif bu dee fiil maat maag masdar maag mu daara yëpp ma nga ca bu dee lisim itam tasniyaat jamoog lu ne xaraf daal in yalzam bu taqoo baat lisim wala fiil fa aslun cosaan la walladi laa yalzam wa nga xam ne nag moom du fa sax léeg-léeg doo ko gis azaidu mooy ndoolant mithlu taay uxtudiya royees na uxtudiya royeb cosaan bi xadwun la kon taa i ak alif gi laa yalzamu tasrif al kalimati ndax da nga naan xadaa yaxdu doo fa fekk alif gi doo fa fekk taay kon uxtudiya yaam googu waawa doon cosaanam min xada yaxdu ñu teg ko uftuila au lieu ñu ne uxtudiwa déedéet kasra gi dawlu waawu mujj ñu sot ba tey nan la ñuy wasnoo baat nag ba génnee cosaan ba ni yii mooy cosaan yi yii mooy zaida yi mu ni qaabil na nga tollaleeg al usula cosaani baat bidim ni fiilin ci xaraf yi fiilin làmboo faa ayin lam su ko defee yooyu mooy cosaan yi xarafu wa zaidun dollant moom uktufiya bi lafz yi lafz ba na mu mel ca mawzoon ba noonu lañ koy bàyyi ci fiil bi dégg nga léegi tey ixtasama soo ko dee wasnu andil dimnu fiilin nga tolloo kook xasama rek nga xam ni faagi xaagi mooy fiil looloo tax ñu di ko tudde fiilu faawu baat ngir dañoo xoot baatu fiil saat gi ñu tudde ko aynu baat bi ndax dañoo seet ayin gi ci fiilin hakaza wa zaidun xarafu ndoolant bu ca nee uktufiya bi lafzihi ñu doyloo nga daal di ni ixtasama baat bi nga koy wasnoo zaida bay ngeen andi nga daal di ni aywa iftaala maa wasnu ixtasama nga ni iftaala gis nga yaa nga andi alif andi taa waaye andi woo bu doon xarafi cosaan laamu baat gi ngay ful ni ki nga gisee faala li la seetal faala li la ñetti laam ah kon te fa bi dum nu fiilun kat moo doon moo doon laam gi rek waaye ba nga xamee ni jax marisin mënuloo caa dindi benn ni zaida la kon boo wada i fi laama ida aslun baqi da koy wax ci kanam du dëgg mu nga daal di fula ful laam gi bu ba mu mat yetti laam rek faala li la ndax jax marisin ba nga nee jax mara jax ma sulaasi yongo aywa waaye nag mu taa jeex jax marisin mu des yaari xaraf dégg nga kon nga ni cee tam ci ixtasama nga ni iftaala wa zaidun bi lafzi hiktubi wa daif fulal laama laam ida aslun bu fekkee ab cosaan da ngaa indi dimnu fiilin mu des fulal laam nga ba ba muy mat soo ko fu- fulee benn yoon niki nga daal di ni eh, daxraja ñu ne la kooku boo nga indi ca faalun muy daxarun rek nga ful laam gi gannaaw dafa desug raa du dëgg te te cosaan la léegi bu fekkoon ne xarafu ràgg la lafsu ba ngay indi waaye cosaan la kon fulal laam gi moo tax nga naan fa lala doo yem ci fa lala isla asun baqi karaa i jaafarin wa xaafi fustuqi jaafarin fa lalin nga naan mooy wasinam fustuqin fu'lulun fustuq nag jaafar moom turu nit la fustuq nag am na ñu koy firee gerte gi fàttaliku naa Madu Faal xari ba mu- ba mu ne ci sama daaray papa mu yónni ma ni ma demal laajal ma sa papa ni ko gerte lu ñu koy wax mu ni ko danañu ko wax fustuq de ci laa ko takkee ba tey waaye gone fustuq am nañu koy firee gerte waaye am nañu gerte fuulu Sudan lañu ko tudde ci arab fuulu Sudan maanaam fuul xeetu fuul la waaye nag réewu Sudan la ko arab jëkk a gise ñu naan ko fuulu Sudan waaye xam nga loolu xaqiqatan du aw tur waaye nag danañu ko ko xamee ñenn ñi ba tey ñenn ñi danañu wax fustuq in wa in yaku zaidu difa asli faj'al lahu fi lwasni ma lil asli wa in yaku bu nekkee zaidu xarafu ndolant ci baat difa aslin di cosaan lu ñu ful dégg nga kon faj'al defal lahoo ñeel ko fi lwasni ca wasnu ba defal ko ca ma lil asli la ñeeloon cosaan ba ah, su fekkee ni lu mel ni kii tey ah, dañu la ni baatu marmaris te moo di daahiya musiba yàlla tere marmaris lu- luy was noom faj allahu fil wasni maalil asli nga da baat bi ngay dimnu fiilin nga takraar moom it ayinam door a indi laam faagaak ayin ga nga ni fa failun marmarisun fa failun ngay wax ni marmarisun mel takraar yaari xaraf yu jëkk noonu ngay takraare fa ak ayin ci sa wasnu ah, ñu ni la xiltiitun xaw ma ismu nabtulaati xaw ma luy was noom nga ni fiiliilin ndaxte xiltit noonu ah, mujarrad rek la amul xaraf ndola nga ni nga nga ni fiiliitin laaw ah nga wasa kon kon fiiliit dafa am eh, dafa am eh, xarafu ndolan kon fiiliit yaageeg taagi day ndollant moo tax nga ni fiiliitin da mooy wasaidun bi lafzi tubi kon xiltiit ñetti xaraf yu jëkk yi mooy cosaan dégg nga xilti kon yaagi ak taagi saida la kon nga doyloo leen ci wasnu bi moo waral nga ni fiiliitin waxoo fiiliilin dégg nga faj allahu fi lwasni ma lil asli waxkum bi tasili xorofi simsim na nga àtte ni baatu simsim te ñu di ko waxit juljulaan kooku xarafam yëpp cosaan la simsim wa naxwu min kulli rubaayin bépp rubaayi boo xam ni takararat faa'uhu rubaayi boo xam ni faaga dafa takaraar faagi mooy siin bu njëkk bi mu dikkaat ci gannaaw ñaareel bi ah wa ayn fa fa fa ak ayn baatam ñu andeeti siin ak miim a jëkkoon ñu andeeti siin ak miim walaysa ahaduhum ndax ahadul mukarrarayni saalihan li suqooti fi nga xam ne benn ci mukarrar yooyu mënu la rot waxuma laak lam-lama lam-lama moom da gis nanu lamma feneen waaye nag danañ wax xilaaf bi ci nekk sa sim-sim moom benn ci mukarrarayni mënu cee rot kon dañuy mën a atte ni mu- a- ñoom kooku mujarrad la amul xarafu zaida moo ne wax kum ateel bi taasili xurufi simsim ci cosaanek xarafi simsim yëpp wanaax wi yéeg lu demee na moom te mooy noonu mu wax rubaay yu boo xam ne dañoo takraar ko faagaak ayin ga te walaysa ahaduhuma saalihan li suqut wal xulfu wuute fii kalam lam nekk na ci lu mel ni lam lama bi maanaa jamaa rubaay yu la boo xam ne benn ci yeñu takraar saalihun li suqut mënoon na wadd ni ki lam lama genn mënoon nga dindi laam gu ñaareel ga ni lam kaf kafa fekk na feen la mënoon nga ni kaf fa dégg nga kon nag kaf kafa fegu na maanaa fegu na maanaa imtanaa da su ko defee nde alkaafu saaniyatu s- mook eh, laam ga ca lam-lama ak kaaf ga ca kaf-kafa yaar yooyu saalihaani li suquti bi dalili sixati lam ak kaf waa basara nag ni ñaari cosaan la benn la dañoo kii la dégg nga fa alifun aksara min aslayni saaxaba saidun bi dooni ci ni nuy xamee saida ba tey dañuy seet baat su ma tee ñetti xaraf alif door caa dolli ko foo ko fekk saida la daari bun da nga naan dara daara ba rek moo fiy cosaan waaye alif googu ànd ak lu ñett ñetti cosaan yu mu wóor ni cosaan lañu alif ànd ca kooku saida lay doon ni ki daari bun tey min aslayni bu dee ci lisimit noonu ni ki qaasim آه، زائد بدون مين تلد الفن واليا كذا والواو إن لم يقعاك إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ ووعوع واليا كذا والواو واو يايت نون لنيو سنو أنديك لمت نيتي تشسان بغ فا نينتيل كومو تي دون كون زائد لي بنا دون دو دون تشسان تي تي فامون كما تقول فلان يسيطر على الناس سيطره léegi yaa ngi ànd naag yetti xaraf yoo xam ne taasiluha taxaqaqa du dëgg satara saagi paagi raagi moom ci- ci- cosaan lañu kon yaa googu zaida la moom la ni wal yaa kaza wal waaw waaw itam noonu misaalam ci bu dee lisim li ki waaw jawharin kooku ànd naag lu mat ñetti cosaan ak sara min aslayn te kon kon waaw woowu eh, zaida lay mën a doon moom la ne waaw ak yaa nag ba ñuy doon zaida in lam yaqaa su fekkee ni tabbiwuñu ca baat ba nekkuñu ca kama huma ni nga ni ñu nekke ñoom ñaar ci yu yu ak wa wa nekk di njël beenu baat kooku kon dañuy xam ni cosaan la ci eh, baat bu ñu takraar min xarfayni wa wa si maanaam sawwata yu yu ismu tairin kooku turu am picc la dégg nga oh, su boobaa kon ay cosaan la ñu leen di bàyyi mu doon wa hakaza hamsun wa mimun sabaqa thalathatan tasiluha tahaqqaq ni nga xamee ni waa waaw ak yaa bu ñu àndeek eh, lu aktara min aslayni zaida la ñu hamsaak mimit noonu kon akrama hamsa gi zaida la mukrimun mim mi zaida la ndax ku ci ne un daan Ah, wa mimun sabaqa wa hakaza hamsun wa mimun sabaqa thalathatan tasiluha tahaqqaq hamsa ak mim bu ñu dawloo lu mat ñetti xaraf yoo xam ne xam nañu ni cosaan lañu ni ñu dawloo ci akrama ki mukrimun ak lu ni mel loolu kon hamsa ga ak mim ma xarafi zaida lañu foofu kadaaka hamsun axirun baada alif ni ki noonu hamsa gu mujj ci gannaaw alif ni ki xamraau alif goo xam ne ah, lafzuha ba lafzu alif ba radifa topp na aksara min xarfayni xa ma ra alif doore ñëw ra- hamsa topp ca kooku hamsan googule zaida la mook alifam googu yëpp na aha wa noonu fil axiri kal hamsi noon ci mujj baat mook hamsaayam su fekkee dafa dikk ci gannaaw alif te fekk lu ëpp yaare cosaan dawlu ko kon zaida la ni ki sakraan waaw bu fekkee dafa mel ni xadan far nga xam ne ñaari xaraf a dawlu ñaari xaraf mujj noon gu sukkoon ne ca seen diggante kooku ku fiyee fegal nañu ko asalatan ak cosaan kon bi maanaa zaida lay doon wuteeg su fekkoon ni eh, eh, dafa ñaareel kon mën na dem ba ñu di ca wuute cosaan la wala du ko ni ki lii xara dikk ci kanam xëy na de aw taanis wa taaw foofu la ne taaw fi taanis nee na wal mudaaraa wa naxwu listifaali wal mutaawaa taa bu nekkee ci barab yooyu zaida la ci taanis taaw taani su lisim bu du cosaan ca baat ba ni ki qaimatun wal mudaaraa wala eh, naka noonu ci bintun kat wal mudaaraa wala ci mudaaraa ci niroogu feel niroog lisim maanaam fil fiilil mudaarii ñe du dëgg suñ ca fekkee taa ni taqulu hind taagoogu zaida la wa naxwil istifaali wala taagu mel ni gi ci masdaru istafaala nga ni istifaalan taagoogu zaida la wal mutaawaati ak taawu mutaawaa niki tadaar niki taallama allamtuhu fa taallama fa taallama mu taawi la ci allamta ana dégg nga yooyu nee na yëpp zaida la ñuy doon listifaal nag ca masdar mi rek la tudd yóbbaale na dégg nga istafala yastafilu mustafilun taaw listifaal lépp lu ñu xare ci listifaal taaw dégg nga de wal haa waqfan kalima walam tara haa it dana nekk xarafi zaida ndax xam nga xarafi zaida yi te mooy li si ba waxi boole loon waxoon taalibe ni leen mooy xurufi saal nu tumooniha ak nu ko téere yi dégg nga mulxatul iraab ma ngi ko dajalee ci yaa hawlustanim am na nusxa yi def saail wantahim am na ñu koy daje ci amaanun wa tashiilu boobu nag moo gën a rafet yëpp amaanun wa tashiilun ah fukki xaraf yooyu rek ñoo ca ne xarafi siyaada yi moom fukk lañu dégg nga ah su ko defee wuteeg xarafi zaida yi ñoom juróom-ñeent rek lañu lib daal yi zaida yi fukk lib daal yi juróom-ñeent moom la tënk ci hadatu mutiya hadatu mu ak waaw ak ta ak ya ak alif wa naxwu wal haa ak haa waqfan ci taxaw zaida la niki lima haa googu zaida la waaye est ce que haa gi moom xaraf rek la ak lam tara ñu di ko dolli ci mu daare mu ñu jasamte mu dese wenn xaraf rek wala mu ak laam fi lisharati ci ismu lishara almustahilati ji siw dalika laam googu zaida la wamna ziyadatan bila qaynin sabat bila qaydin sabat in lam tabayyan xujjatun ka xadilat nee na bu xaraf nag xay melo yiinu tudd bul nangu ni wenn xaraf zaida la bila qaydin ci lu dul tënk boo xam ne sabata sax na nu wax la ko ak mu leer la dégg nga kon fukki xaraf yooyu danañu doon zaida kat waaye kenn xalaatul ni foo leen fekk zaida la déedéet ah bismillahi baatu bismillahi siina nga ca miima nga ca te maanaa pour ñu nekk zaida na nga leen fekk ñu mel nii nu wax dégg nga moom yooyu dégg nga in lam tabayyan dem birul xujjatun lay bu boo mën a xame ni zaida la fekk ji amoo ca pro daal bul wàtte mukki xaraf yu zaida ndax ñoom ñëpp mën nañoo nekk cosaan ci baat alif sax mën na nekk cosaan ci lisim dafa mënul nekk cosaan ci feel misaalu xujja ba ka suqutiha fi baadi tasaarif ka qawlihim xadilatil ibilu ida taadat bi akli min akli lxandal kon nag xadilat xam na ni kon nuunu xandal zaida la dafa ñaareel du dëgg